seen bokk Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye mu ñëwaat ak yéen ci seen jotaayu wa rattilil qur'aana tartiila jota di jotaay bi nu ànd di nafar lenn ci qawaa'idu tajwid te fi mu ne nii ñu nekk doon topp téere boobu ñuy tuddee Tuhfatul Atfal li cheikhina Suleyman li cheikhina Suleyman al-Jamzuri rahimahullah jotaay boobu nag di ngeen koy toppe ci site internet ahlul quran point com waaye man koo suivre tamit ci youtube bi lu mel ni compte ahlul quran wala compte bi tudd la maison du ci jotaay bi ñu wees ñu toll woon ci ahkaam al miim as saakina attey miim gu sukkoon ci alquran waxoon nañ ni ñett la ba ci njëkk mooy al ixfa bu ñaareel ba mooy al idgaam bu ñettel bi mooy al izhar ñett kessa la am ndax borom teer bi neewon na ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'u nidgham wa izhar faqat ñom ñetti at yooyu nag ci lañuy ñuy sóobu tey incha allah li na xol kenn ku ci nek kañ ngay nek hukmu ci al mim as saakina ci al qur'an bim ci njëkkali moy al ikhfa' برم تيري بنينا فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء فالأول يعني الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة أتبنجك تي أتي ميم سكون nee na mooy al ixfa ixfa nag yàgg naa ko wax maanaam yàgg naa leeral ci jotaay yi passé mooy lan mooy nëbb ci wolof kon miim gu sukkoon gi dañ koy nëbb li tax ñu koy nëbb mooy baagi topp ci moom kon dañu gis ne kon ci baabu al miim saakina ixfa wenn xaraf la baam mooy al ba al ba moo tax mu ni fa la walul ixfa wa inda al baa'i يعني إذا جاءت ميم ساكنة وبعدها حرف الباء ميم ساكنة googu atteem day nekk al ixfa loolu yi ay misaal mën na cee am lu mel nii faxkum baynahum faxkum baynahum baat bu njëkk bi di faxkum miim gu sukkoon a ko jeexal baynahum di baatub ñaareel bi baa moo ko door kon miim sukun na baa topp ci miim googi sukun atte mooy al wala lu mel ni am bi zahirin min al am bi zahirin am miim gu sukun bi zahirin baa moo ko ñu gis ne kon miim sukun na baa topp wala lu mel ni wa man yactasim billah wa man yactasim billah jami dañu gis ni foofu yi miim moo ko jeexal billah baa moo ko door kon atteb miim gu sukkoon googi jeexal baatu yactasim atteb mooy al ixfa ndax xarful baa moo ci topp kadalika wa hum bil axira wa hum bil axira miimug wa hum dañ koy ixfa ndax baa'ug bil axira kon loolu leer na ni xukmu al miim assaakina qabla al baa mooy al ixfa atte miim gu sukuun gu jiitu xarful baa mooy ixfa mu teg ci ni wa sammihi shafwiya lil quraa'i وسمه إخفاء جوجي تدكو يعني إخفاء الميم الساكنة تدكو الشفوية الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي تدلكو للقراء يلجان كريمانم قراء القرآن والعلماء التجويد إخفاء الميم الساكنة إخفاء شفوي لنكو تدي كون بني ما هو الإخفاء الشفوي mooy ixfaau almiim assaakina inda albaa sàmbaay dem wala sàmbaay bàcc bàccee sàmba ni ko wolof di waxee ixfa miim gu sukkoon ci baa mooy ixfa shafawi ixfa shafawi mooy ixfa miim gu sukkoon ndax noonu lañ koy tuddee ñaari tur yëpp da koo am lu tax ñu di ko tuddee noonu lu tax ñu koy tuddee ixfa shafawi li tax ñu koy tuddee ixfa shafawi mooy bu ñu seetloo delloo ñaari xaraf yi di miim gi ñuy ixfa gi ñuy nëbb ak xaraf yu tax ñu di ko nëbb di baa buñ leen delloo ci baabu maxaarijul xuruuf dañuy gis ni ñoom ñoo ñoom bokk benn maxaraj te seen maxaraj mooy benn chafetayn seen maxaraj mooy diggante ñaari tuñ xaraf woo bëgg xam maxrajam sukkoon ko xaraf boo bëgg xam fa muy génne jàng ko bil iskaan bu dee mim bonee am am dangay gis ni kon benn chafatan lay génn maanaam ci diggante ñaari tuñ yi kadalik xarful baa moom it bonee ab ab ab da gis ni benn chafatan lay génne loolu yi euh, qaayida la bu jàngalekat yi di joxe pour nit ki bu bëggee natt xaraf sàngam fu mu toll ci dëkkuwaay fu mu dëkk mooy jàng ko bil iskaan rek ñaari xaraf yooyu boo ko nattee kon dangay gis ñoom ñaar ñëpp benn cheftan la ñuy génne comme que xaraf bi ñuy nëbb nag benn cheftan lay génne xaraf bi nga xamante ni moo tax ñu di ko nëbbit di xarful benn cheftan lay génne looloo tax qurraa yi tuddee ixfa googi ixfa chafawi ndax dara génn ci diggante ñaari tuñ moo tax mu ni wa sammihi chafwiya lil qurraa yi kon loolu leer na att bu njëkk mooy ixfa mim gu sukun كان لن كيرف مو بيتي باتو بي نمو تدو عند القراء إخفاء شفوي أتب نيارل بي تي أحكام الميم الساكنة برم تربيننا والثاني والثاني إدغام بمثلها أتا وسميه إدغاما صغيرا يا فتا والثاني إدغام بمثلها أتا wa sammihi idgaaman sagiran ya fata wa thani ñaareel bi yaani atteb ñaareel miim gu sukun ak wala miim gu sukun kon atteb ñaareel ba idgaamun mooy idgaam kon miim dina sukun ci alquran ñu jël miim gu sukun googu dugal ko ci xaraf ca kanamam kañ lay doon mu ni bi mithliha ata bu fekkee ni miim ni moom ñëw na topp ci moom kon miim gu sukuun kañ lañ koy idram mooy bu ci miim toppee moom tamit wenn xaraf kese la am ci bunt bii idgham ci baabu al baabul miim as-saakina benn xaraf dafa am mooy miim loolu tamit man na see joxe ay misaal yoo xam ne dañuy gis ni miim sukun na ci alquran miim topp ci lu mel ni in kuntum muminin kuntum muminin miim gu sukun na ko jeexal muminin miim moo ko door kon ñaari miim yi daje nañ gu sukun ak ganeen miimu kuntum googi sukun dañ koy idgham dañ koy dugal ci miimu muminin ci njàngin moo tax wax kuntum muminin nga xam ni benn amaliye nga def ci maxrajul miim mu ànd ak shadda mën nañu joxe misaal ci walakum ma kasabtum walakum ma miimug lakum saakina dafa sukuun ma miim topp ci atem mooy al idgham miimug lakum dañ koy dugal ci miimu maar waaye mel ni am man yujibu am man yujibu miimuk am man moo ci topp kon miimuk am googu nga xam ni saakina la dafa sukuun dañ koy dugal ci miim gi ci man nga ni am may doo wax am may am man doo ko wax maanaam doo génne ñaari miim ci maxrajul miim waaye génn ngay génne gu sadda ndax gu njëkk gi gi ci am te sukuun da nga koo ci gi ci man ma ngo kon misaal yëpp buñ ko settantale te seetlu ko lañuy gis ni miim fu mu ci alquran kon miim ni moom topp ci atte bi mooy nekk al idgham borom téere bi teg ci ni wa sammi idghaaman saghiran yaa fata yaa fata yaani yow cemsi yow mi jàng ilmu tajwid sammihi xeetu idgham gi mooy idgham gi nekk ci baabul miim as-saakina tudde ko sammihi tudde ko saghiran idgham saghir idgham saghir kon saa bu ñu ne al idghaamu saghir ñu ngi ci jublu idgham al mim as saakina saa bu ñu ne idgham saghir ñu ngi ci jublu idgham al mim as saakina lu tax ñu tuddee ko idgham saghir la tax mooy masala mi buñ ko delloo ci eh, baabul mithlayn wal mutajaanisayn wal mutqaaribayn dañuy gis ni mithlayn la mutamaathilayn mithlayni mutamathileyni boo ci wax dana mooy xaraf daa ñëw takraar ñaari yoon duñ ci yaatal ndax dina dinañ àgg ci bunt ba ci jotaay yee di ñëw insha allah waaye dañu gis ni rek kon moom xaraf woowu ñëw takraar la ñuy tudde mithlayni moo tax mu naan la wa thani bi misliha bi misliha ata bu miim ni moom ñëwee kon miima ñëw sukun miim ni moom topp ci kon mislayni la benn ñaareel bi mooy mislayni bu fekkee ni ñaar yëpp dañoo maas mislayni kabir lay tudd bu fekkee ni bu jëkk bi daa maas bu ñaareel wala bu njëkk bi daa sukuun kon bu fekkee ni bu njëkk bi daa sukuun bu ñaareel bi maas mislayni saxiir lay tudd bu fekkee ni contraire lolu mo am contraire saxiir manam bu njëkk be mas bu ñaareel bu sukun mutlaq lay tudd lolu dina gën a leer buñ buñ àggee ca buntu mutamaatileen ak mutajaaniseen ak mutaqaaribeen waye ñu xamni kon bi mom buñ ko dalé ciosanu lolu mitlayn la waye mitlayn saxiir la sahir gogi mu don nak motax idgham gi ñu tudd ko idgham ndax delo ko ci ciosanul ci ciosanul ñaari xaraf yoy yi ci buntu misle ak yamu àndal kon dañuy gis ni idgham al mim as sakina kagn lay doon moy bu fekke ni mim ni mom top na ci waye xetu idgham googu nekk ci buntu ahkam al mim as sakina mom lañ tudd idgham saghir loolu mooy maanaam baytub والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه دغاما صغيرا يا فتى والثالث عتب نتل بأحكام الميم الساكنة لأن والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية والثالث الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة عتب نتل بأتي ميم السكون الإظهار ما إظهار كن ينكرف fil baqiya ca la ca des maanaam li des ci alxuruf li jaay yëpp ginnaaw bi baa génnee pour ixfa miim génn pour idgham yeneen ñaar fukki xaraf ak juróom benn des yëpp xuruful idhaar la ci baabu almiim assaakina loolu la jublu ci wa thalith al idhaaru fi lbaqiya min ahrufin loolu tamit mën na sa joxe ay misaal yu bare bare bari ci alquran eh, miim gu sukun goo gis rek waneen xaraf topp ci budul yudul eh, miim ak baa idhaar la comme yamtaruun wala alayhim wala dallin ak yu ni demee wu ñëw ci ginnaaw miim gu sukun te xaraf woo wi xool nga ko du baa nga xool ko du miim atteg miim googu izhaar la wax naa misaalum yamtaruun sànq dangay gis misaalu azzamaan gis misaalu kuntum sadiqin wala wamdu wamdu miimug wam dafa sukun du baat moo ci topp wala lu mel ni am xuliqu wala lu mel ni hum fiiha wala lu mel ni alayhim wala daalin ju ñu naa ko sànq ak misaal yu ñu demee bari na loolu ci alquran ndax moo ciy gën a bari ndax xaraf ya ca des ginnaaw baa ak miim ñoo gën a bari fuuf mu ni moomit it izhaar shafawi lañ koy tudde izhaar shafawi moom dañoo delloo izhaar ji rek ci xaraf yi ñuy izhaar di miim ñu gis ni maxrajam mooy shafatayn te yeneen xaraf yi dañoo tas ci yeneen maxaarij tas ci yeneen maxaarij yi ci diggante put ak làmmañ ak diggante ñaari tuñ moo tax mënee su la sukkandiku ci ñoom pour utal izhaar ji tur ñu sukkandiku rek kon ci xaraf yi nga xamante ni moom lañu izhaar di miim ndax maxraja mooy benn shafateeni ñu tudde ko izhaar shafawi kon loolu mooy attey miim gu sukun ci alquran li e, e, idgham ci baa lañ koy def wala إظهار إدغام تميم لنكويدف ولا إظهار تحرف يجلس يب لنكويدف مدف لك بن تنبي تبايت بمجو تي بنت بي من وحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي وحذر ميتل لدى واو وفى تي واو أكفى من حرف الواو أك حرف الفاء bu ñu toppee ci miim gu sukuun moytul an taxtafi nga ixfa moytul ixfa miim gu sukuun ci xarful faa moytul ixfa miim gu sukuun ci xarfu alwaaw lu tax mun la li qurbihaa bu dee faa li tax man la moytu koo ixfa ci miim mooy dañoo dende génn waay dañoo dende maxraj ndax mii mi ngi génne benn chafatain waxoon naa ko sànq waaye faa mi ngi génne ci baatinu ashafa assufla ma atrafi thanaayi al ulya maanaam biir tuñum suuf mooy ànd ak cati ba kaw faa génn af af boo ko waxee da ngay gis sa cati ba kaw dafa tegu ci sa biir tuñum suuf cati biir tuñum suuf nag bu ànd ak cati bi ñu dafa jige lool diggante ñaari tuñ kon maxraj yi jigee nañ moo tax mu ni bu dee faa moom li tax man la moytu ko ixfa bu toppee ci miim moytu la ixfa miim bu ci faa toppee li tax ma wax ko mooy li qurbiha ñaari xaraf yu dende lañ lool boo moytuwut nag denda ga ñu dende tax nga filaale ko rek ixfa ko bu dee waaw nag wal ittihaadin waaw li tax ma moytuloo la ko mooy moom ak miim gi ñuy jàng dañoo bokk benn maxaraj dañoo bokk benn maxaraj miim benn shaftan la génne waaw tamit kadalik aw aw boo ko ni benn shaftan lay génn ñett xaraf yi gën a benn shaftan mooy ñoom ñaar ñii miim ak waaw ak baa kon miim ak waaw ñoo bokk maxaraj kon moytu la ixfa miim gu sukkoon ci waaw ndax li ñu bokk dëkkuwaay bu mu tax nga ixfaa ko waaye moytul tamit ixfaa miim gu sukkoon ci faa ndax liñ jigee dëkkuwaay loolu yi benn tanbih bu am solo la boo xamante nii lenn ci jàngkat yi rawatina jàngkat alquran yi doog a door man di ci tàbbi lu mel ne xisaabu hum wa hum xisaabu hum wa hum miim moo sukkoon waaw topp ci wala alayhim wala daalin mim moo sukun waaw topp ci wala lu mel ni hum fiha hum fiha mim moo sukun faa topp ci ak yu nu demee yooyu yëpp bàyyi ko xel miim yooyu dañ leen izhaar ndax bokkuñu ci xuruful ixfa ci bunt bi benn xaraf la fi ixfa mooy baa bokkuñu tamit ci xurufu al idgham ci bunt bi ndax idgham benn xaraf la fi am mooy miim kon ca ya des la bokk jigeeg fa ci miim bum tax nga ixfaa ko dëkkandoog waaw ci miim bum tax tamit nga ixfaa ko kon lii mooy ahkaamul miim as-saakina euh, ñett la leeral nañ ko firim fànc nañ ko joxe nañ ci misaal yàlla lañ borom subhaanahu wa taala defal tawfiq seen bokk Abou Taha Mouhamed Alioune ngay moo àndoon ak yéen ci seen jotaay wa rattilil qur'aana tartiila ngeen mën ko suivre ci ahlul quran point ak ci compte youtube yi ahlul quran wala la maison du coran asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu الله الله الله رتل القرآن ترتيلا